bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku amateur yi eh, mbokku internet yi ñu ngi leen di siyaar waaw di leen nuyoo fii ci Sénégal gi seen xarit du satu waaw di leen wax ne eh, góorgóorlu production moo woote waaw mu nekk lamb ju mag mu teg fi million millions 500 mille francs waaw muy poids lourd ak poids léger waaw ñu leen di wax ne waaw ñu ngi fiy xaar ay champion yu bëree bëree bëree bëri ndeysaan fii ci Grand Yoff ci terrain gaal gi ndeysaan di leen wax ne waa Kewel Info ñooy ànd ak yéen ak seen xarit Doudou Satou waaw jege diit nag dinañ leen won ambiance waaw. Hallelujah. nga bëre benn combat waa daan jël bu rëy waa ñëw wàcc ci lutte simple bi lutte bi loo ci gis ba ñëw. waaw damaa xam ne tey làmb ji ku ci nekk boobu bëggee nekk champion foog nga jaar lutte simple lutte simple mooy defar mbër foog nga ñëw compétir boo bëggee am dara si làmb dóor foog nga jaar ci simple bi da lay jàngal bari da si am expérience bu bari. waa kontaan nañ ci yow mais làmb ji noo ko gisee tey. waaw neex na neex na neex na dañuy ñaan yàlla yàlla dafa ñu ko rek neex na trop xam nga làmb simple moom ambiance bi ak waaw musique noo gisee Kewel Info Kewel Info. waaw neex rek dañ koy suivre si réseaux sociaux yi xam nga di ko suivre si si internet yi xam nga waaw lu neex la par day révélé mbër yi xam nga day tax ñu xam mbër yi waaw te loolu am solo la. waaw jërëjëf mbër jege diit. waaw ñoom jege diit. sotu fay. waaw góor a dimanche ñu gis nga finalu fii waaw tey nga ñëwaat loo gisee lamb ji tey góor waa waaw lamb ji neex na de. mbër yi ñëw nañ te lamb la muy neex rek mbër yi ñëw. waaw tey ñu gis ne ay yu bëri ñu ngi fii waaw est ce que Gora yaa ngi xalaat jël lamb ji. waaw incha allah bu soobee yàlla waaw dama ko war a jël tey incha allah te maa ngi yoon bi. waaw Gora ñu lay laaj noo gisee Kewel gi info Kewel gi. waaw Kewel gi info c'est ñu koy suivre site bu dox te gars ñu koy suivre te gars koy teg si yoon ñaanal jàmm rek yow itam di ñaanal jàmm yow mi si nekk di liggéey yàlla na ci dabal sa xéewal ci barke yonent bi. waaw Pakala nuyu nañ la. maa leen di fay. waaw tey ñu gis nga ñëw fii terrain gaal gi waaw noo gisee lamb ji tey Pakala. waaw lamb ji ala daw ma am na ay mbër de waa ñu gis ne am na samp yu bëri bi wàcc est-ce que yaa ngi xalaat pour jël lamb ji yëpp pakala waa tournoi la lu ñuy bëri ni yëpp kenn rek moo ko siy jël ku yàlla àndal rek yaa ko moom waaw waaw pakala ñu lay laaj ba tey ñu la ci bëre dóor bi lan moo xew non dama amul combat amoo combat lan moo xew lu tax am combat gars yi ñooy ruux di daw dañ laa ñemewul quoi ah loolu lay nduru waa est-ce que du est du xeex bi moo tax gars di daw non non boo boo demee bay ngemb di takk ngemb di bëre waroo daw. waa moment yi kan nga gis ne yaag moom combat la kan nga visé fi nekk nii. ñu nekk si kaw ku ñu jox sa combat ñuy daw dawloo ñu nekk si kaw. waa comme kan. jarul may tudd tur boo juree tuddee tur dañuy naan da nga ko ñu benn wala ñaar rek. non non rek. Ah. waaw. waaye fi mu nekk nii daal yaa ngi saf nga saf ci bëre simple bi. waaw waaw saf naa saf moom bilaay walaay. maa ngi leen di fay. waa Caaka gëj nañ la gis fii de. lu xew waaw maa ngi fii de maa xawoon na tooy rek. moo tax ah da ngaa xawoon tooy. lamb bi métti ko wala. waa xam naa assolement bi la rek parce que man moom su may wër chaque jour maa ngi si terrain bi. waa tey ñu gis la euh, fii ci terrain gaal gi loo gisee lamb ji tey. wa lamb la rek comme lamb yi yëpp di ñaan yàlla muy may mu may ma rek mu doon suma lamb quoi. waa ñu gis ne. Caaka Faye jël na ko Batlin Sigi génne ko aca bëre am miñan foge no waag to ke mosna jare ɗeta naam koku seereer ye ko wax e cey tere gaal gi lu ne xew na fi ndeysaan Caaka Faye plaqué na ko mu bañ mu manœuvre ko e Diaka Faye manuel na ko daan ko Diaka Faye jël na lamb ja Biram Kunku waaw jërëjëf mbokku amateurs yi mbokku internet yi ñu ngi leen di gërëm waa di leen wax ne góorgóorlu production moo woote woon fii waaw tegoon fii deux millions cinq cent mille ñu leen wax ne Diaka fay Biram Kunku moo jël lamb ji ndeysaan waaw ngeen àndoon ak seen xarit Doudou Satou waaw ñu leen di wax ne ngeen abone ci sit bi Kewel Info